asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam yéene safoo seen seen bii di coow li Buzz HD moom njiitalu Pastef bi néegi ni démb def na ab déclaration fële ci hôpital suma assistance di leeral bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ni lenn ci yaramam dundee na ko waaye tamit ak ci coono gi nga xam ni tegee nañ ko ko ci luy ñu jàpp le 16 mars bii ñu génn mu nekk mbir yi nga xam ni moom mee dakaa ñaawlu bu baax a baax ndax kat politique jarul leen yi waaye kat Sénégal gi ñu toll ak ñi ñu jàmbaarloo xam nañ nekk na nit ñi nga xam ni nguur jaral na leen lu nekk waaye nag moom moom mii njiital Pastef bi daanaka jamono guñ toll nii dafa wootaat benn résistance bu bees tàkk ci mim réew di Sénégal ci 46 département yëpp waaye tamit fexee la tout ba gàncaxal na saxal bu baax ci lenn li nga xam ni moomeelu Sénégal gi ngir kat ñii di président wala ñooñu seen gouvernement daal di ci am yëg-yëg bu baax a baax ngir kat métti lu taxawaay bi nga xamee ni gis nañ ko ci mim réew waaye tamit di xamle bu baax lépp dara warul ko lu dul yorin bu bon yorin bu ñaaw li nga xam nag ñëpp la Sénégal yi doon faral di wax naan Ousmane Sonko fan lay dem France wala fan lay dem moom xam le ne demul fenn ci mim réew di Sénégal lay toog bokk ak ñëpp garsa garsa bi bokk ak ñëpp xeex bi ngir kat ñoom ñëpp ñoo ko sumb te boobaa dinañu wane lu ñu mun a lu ñu mun ak lu ñu munul comme jàpp ni kii di njiital Pastef bi la saa su ne conviction totale la daal di wane ci xeex bi nga xam ni moom la indi ci langue politique bi lee loolee nag dañuy wane bu baax a baax kii am na leen lu mu taxaw wanewaat lu dul comme liñ ko faral di gisee ndax kat dañuy gis saa su ne politiciens Sénégal gi rawat na ñi ñu gisee saa su ne dañuy taxaw ci mim réew taal jiima taal jiyee waaye bu jiyee amee ñëpp dañuy daw dem fenn ci réew tugal yi lee moom nag xamee ne bu baax a baax demul fenn dikkul fenn jimul sax laajte lii di passeport wala lu mel fii la lay toog bokk ak ñëpp coono gi ak lépp ndax kat boobaa moom mi ko woote dañuy wara taxaw ñun ñëpp xam né li lii wara jé tak timim réew du Sénégal kon nak olof limi naan olof di olof njaay naan gor sa wax ga gis nañu bu baax mom Ousmane Sonko jittel pasteur bi lé lolé wané nako bu baaxa baax nak kat li rek mo li am solo ginnaw ci li nga xam nak mom lañ ko pompé ci yëreem ak ci lén ci yaramam bu baax donc nak xamaguñu wayé nak luñu xamlé bu baax mom yoné na lolé wala kat médecin sénégalais yi suma ostance jël nañ lolé yóbbu ko biti réew ngir mën kat xam lan la wayé kat nek na luñ ci njort dal moy jëfin gu ñaw bu bon lañ ci naroon juk wayé nak lu ci mun tam dal que eu percebi